ñoo xam ne comme kii euh, commande Sidiki euh, Matar Sow euh, monsieur Cham, donc avec madame Odile Gazi am nañ fi daal vraiment ay nit engagé yu fi nekk pour affaire propriété au quartier bi mais xam nga liggéeyu Anne Marina c'est pas un petit affaire defar kii bi bale li yomb na trop mais il faut que yëf bi dem au plus haut gouvernement bi foog ñu dellu si waat dimbaluñu gouvernement faut foog ñu dellu si waat dimbalu si affaire kii bi entretien plage bi amoon nañ fi ben projet sen environnement mais lolou bu mu demee ba légui nous on a d'énormes problèmes pour euh, entretien au plage bi vraiment il faut que le gouvernement s'y mette euh, la mairie et tout nu ñëw jappalé nous. te vraiment euh, affaire plage tamit waa ONAS nan nu jappalé On a surtout nous dimbalu nous si sunu kii bi sunu foos waaw loolu daal moom bu nu ko bu ko amee rek dinañ kontaan waa UCG ñoom tamit ñëwoon nañu xool xam naa xëy na dinañ si def ay jéego loolu la daal bëgg nu loolu su sinon vraiment ñu ngi remercier monsieur Mbacke Seck nga xam ne mooy kii ah sama bàjjen yaa ngi nii yu xattaarale jógee fële waa yaraax ñu ngi nii ñëw jàppale nu amuñu fay ñëpp ñu ngi gërëm ñoom di sant ñëpp na gouvernement bi ñëw dimbali Hann Bel-Air ndax bu mel ni amul fenn on a deux baies dans deux pays Brésil et Sénégal te le Brésil gis voyez, nu mu mel bosu Hann Bel-Air mu ngi nii pollué ba Nous a très nan Nous, si jàppale bu baax ñu projet je vous remercie maa ngi merci. Euh, donc bonjour, aujourd'hui nous sommes euh, réunis ici au niveau de Anne Marinas. Donc nous sommes euh, accompagnés de l'ensemble des riverains avec euh, la Nogor et tout vraiment les associations qui sont euh, au niveau de la Baie au niveau de la baie d'Anne. Donc euh, nous savons tous que le 16 et le 17 c'est la journée de l'environnement. Donc nous en profitons aujourd'hui pour faire le, nettoyage de notre baie. On sait tous que la baie d'Anne était une très belle baie donc à l'époque, mais aujourd'hui on constate que la pollution a vraiment tendance à détériorer la baie.